asalaamualeykum maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo amaat dellusi ak yéen ci yóbbulu bés bi kuy jékki-jékki di xool awray boppam te amu ca soxla dañu ko natto njaaloo mooy bu wattuwut dana mosa njaaloo cig dundam mbaalu mel na njaaloo ni ki jëf jëfi lóot mbaalu ko nuru mbaalu mel na njaaloo ni ki jëfi jëfi lóot mbaalu ko nuru ñong ko toxalee nak ci téré buñ nan fatkhul man naan sëriñ Touba wax ko fa jëri jërëjëf serigne Touba mam Cheikh ibrahim